retraité nañ ba pare seen carrière yëpp def nañ ko loolu xaw ma lan moo leen <laughs> loolu kenn mënu leen ko ci li ma xalaat. bu ñu mhm. bëggoon ci seen àdduna yëpp am nañ ko. dafa defa ñaaw quoi tuuma bi man damay kii bi da damay dama koy naqarlu bu baax dama damay imaginer aussi seeni famille parce que ay nit lañ aussi avant tout ay nit lañ ay mag yu doon. def seen carrière ba nekk à la au conseil constitutionnel ngay jël tuuma yu salte yi di ko teg seen dafa dafa salte mhm. te ay caaxaan kese la te li ko waral mooy dañoo bëgg ay fayantoo la dañoo bëgg fayu ci ko li ma ko xalaatee genre fayantoo la parce que bu joomaay lu mu jàll ak Cheikh Tidiane ak mhm. Habib si xam naa bon ak naa loolu moo leen metti euh, Diallo Diomaye ah? moo moo indi problème Badou <laughs> ah baal ma eh, déggu ma bu baax. allo. Hmm? Hmm. allo Ibrahima xam naa loolu moo leen xam naa loolu moo leen euh, bon pour man vengeance la. donc hmm. report du fi am bu ko xel xalaat. au vingt cinq février incha allah. élection dina am ci jàmm ak salaam di woote nit ñi ci jàmm rek. voter dans le calme. ku nekk yëbbi sa kër après comme ni ñu koy defee rek élection yu nekk. Mhm. donc coow bi moo bëri mais problème incha allah góobu ni problème dina am. Mhm. ku mu neex yor sa carte d'électeur ku mu neex candidat bu la doy nga dem votal ko loolu c'est très simple. Mhm. c'est très simple bon du ñàkk nag dina am ay incidents yu ndaw bi am mais loolu moom élection yëpp dëkk yu développé yi sax du manqué day am ay incidents. donc. Euh, voilà bon ci seen candidat bu ñu kii bon attention bu kenn naa naagu de bu kenn naagu affaire bi ça va maa ngi dégg ay victoire premier tour ay soixante quinze pour cent soixante cinq ci camp nag euh, opposition wala pouvoir loolu bu amee dina ma jaaxal même bu ñu demee deuxième tour affaire bi ça va lu serré lay nekk du yombee noonu de. Hmm. gisoo benn candidat gagné ko tour. loolu man dina ma jaaxal bu amee dina ma jaaxal loolu sax. bu amee dina ma jaaxal loolu te waxuma candidat bi ngay xalaat de ci Amadou Ba aussi dama koy dégg loolu aussi dëgg yàlla mënul am. élection avec vingt candidats. te ci vingt candidats yi rek deux personnes deux Mamadou Lamine Diallo ak Idrissa Seck donc ñoo ci mës a participer ci ay élection say élection mooy bii mooy euh, quatrième fois. Mhm. donc dama cee kontaan nag parce que ñëpp représentant ñu am nañu am xam-xam ñu am valeur ñu nekk ci biir donc en terme euh, ci choix wu électeur en terme ci choix moom vraiment am nañ choix am nañ am nañ am nañ choix loolu aussi dama koy euh, kii bu baax dama koy rafetlu di féliciter encore une fois les sept juges dans lu nekk dégg nañ ko toujours bu nekk nag teg nañ ko seen der au final am nañ vingt candidats te trois candidats waajoolu jaar nañ Bassirou mm-hmm. Diomaye Faye ak Habib Sy ak euh, Cheikh Tidiane Dièye xam nga loolu dafa bett ñëpp Sonko sax xam naa gëmul ni sa waay dinañ ko bàyyi mu jàll ko nañu bàyyi tóoral yi aussi xam naa moom sax gëmu moo tax mu armé Habib Sy jox ko treize député te loolu bëggoon naa gars yi kas ko aussi Habib Sy yow ma ne da ngay xeex système di ko jébbal sa treize député xam nga dama bëgg nag nit yi di poser ay question am esprit critique tuuti même bu nekkee sa propre camp nga am esprit critique bu ñu defee lu ñu war a de li dem kas ko man loolu laay dëgg di dëgg mais euh, camp bii moom vraiment dëgg bi moom bon ñoom daal lu waa ji def rek mel ni xaalis général quoi moo leen di joxoñal léegi joxoñeur la joxoñeur professionnel moom mooy joxoñ ñëpp mais loolu du démocratie aussi d' accord d' accord na non c' est sûr que da ngay euh, d' accord ak man li démocratie affaire de dictateur la. d' accord Ibrahima beneen camp bi aussi beneen benn mbokku yaakaar aussi noonu la demee dama koy kii bu baax loolu pour man démocratie warul fonctionner noonu. Mhm. démocratie base bi base bi normalement mooy décider dañ leen di laaj seen avis. Mhm, mhm. loolu bu ñu ko tàmbalee commencé Sénégal rek yi continué d'accord d'accord buñ ko commencé def Sénégal rek affaire yi day changé. jaajëf mais nekkul benn nit. jaajëf yaay toog kii lay joxoon ñëpp ànd ak yow mais misaaru tarixa wala je sais pas caserne misaaru caserne militaire yooyu. jaajëf am na solo merci beaucoup donc dañoo soxla ko waxtaanu idée ak programme. d'accord léegi sonn nañu ko nag quoi loolu la ñu soxla. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. jaajëf tamit si ay débat de personne yi ay poursuite débat judiciaire vraiment loolu dañu soxla di la remercier bu baax merci vraiment merci beaucoup ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax 88 628 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee rek di ngeen di mën a dugg ngeen wax seen xalaat ci li ñuy di waxtaanee bokk na ci déclaration bi nga xamante ni Ousmane Sonko euh, ni euh, ci juillet euh, bi ñu weesu la ko defoon ngir rek di xaarandi jamono ji stratégie yi nga xamante ni teg waaye démb fësal na tànneef bi nga xamante ni moom jàpp na ni moo war a mën a porter li nga xamante ni rek mooy projet wu Pastef loolee nag daal na cay ci ay qualité qualité yu mu am waaye ci nit ki nga xamante ni jàpp na ni mën na ko utu waaye mën na daal di rek euh, ni li nga xamante ni mooy euh, combat bi donc moom ma ngay sàkku ci ñeneen ñi nga xamante ni jamono ji ay allié wum la ñu woon ñu wu ci ginnaaw Basiru ngir rek dooleel ko bu fekkee beneen mbokk bu nekkaat ci ligne ñu jël ko très rapidement salaamaaleykum mbokk mi. naka yitte ma mbokk mi. maaleykum salaam soxna si na nga def. ñu ngi fa alhamdulilah. Mhm. ma ne kilifa gi dell na waxaat démb de waxaat na de. <laughs> te li mu wax fu mu toll nii doy na nit sëkk sëkk sëkk sëkk wax na lépp tam. Mhm. am li mu gën a neex si kàddu gi. Mhm. daf na réew moo dem nu nu nu président ba mel na la population da mel suñ bëggee mu sensé il faut ñu xool il faut ñu tànn su tànneef tànneef bu rafet. dëgg la ba pare na réew moo gis mu baax réew moo gis mu baax population ba ñëpp dëkk ñoo ko ñooy jël seen engagement defar ko pour mu baax. Mhm. mu dellu si tegaat ne moom tàll la ñëpp loxo pour procès bi ku ku ku ñëw bu ëllëgee buy gañee ñu jox la la nga la nga méritoo. Mhm. te la nga méritoo mooy bu waatam na nga xool sa diggante ak yàlla la nga xam ne moom nga si warlu nga xem sa sa sa lañ la jox. mooy mhm. comme weer wu ne. boo war a fayee ko fukki junne wala soo tollee si weer fukki junne nga fayeeku weer fukki junne la sa des nga wàccee ko askan wi discours wu rafetoo noonu nag kenn mësu koo am ci adduna bi waxuma la nag Sénégal si adduna bi laa la wax hmm. si ku nga xam ne dafa yéenee liggéeyal réew mi bu loolu passé fu mu toll nañ leen gunge Ousmane Sonko bu ñu yàlla dimbalee ba mu toog wala Bassirou toog boo ëllëgee bu lu mel ni tabaski wala lu mel ni leneen xew bu ñu xutbaal dañuy jëndi dañuy waxal lu comme que ñun yàlla mosu bu ñu lu mel noonu Ousmane Sonko mën naa xutba mën naa jiite. loolu kay ñun priorité la si ñun Sénégal quatre-vingt-dix quatre xam ku xam ne yàlla dogal na manee ne nii alxuraan. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñun kay kooku priorité la si ñun xooli démb ñaan gi ñaanal Sénégal rek. ñaan googu Abdou Diouf Senghor Abdoulaye Wade Macky Sall ku ko si mos a ñaanal Sénégal est-ce que mos naa am. Mm-hmm. <laughs> est ce que aay bu wax sax ñoom ñoom ñu jiitee ba nii ku ko ci xam am na. Mhm. ak ñu koo déglu waaye kii te mbiram yàlla la tànneefu yàlla la nañ ku ko nangul te ñu jàpp ko gunge ko moom bu toogu tëbb si lu toog mu nekk si wetam. ñu mhm. liggéey suñu réew mi ngir suñuy doom su suñuy sët ñun fi mu nii bu doon suñu biir yi bokk bi rek yàlla du ñu sàkk suñuy doom ak suñuy sët lay war a sóoraale ëllëg dëgg géeg réew mi émersa essence beeg gaz bi yëpp suñu sët yeeg suñu doom yi ko yàlla wërsëgal du ngir ñun ñun bu doon ñun rek bu yàgg la ñu ko yàlla da wërsëgal waaye fi mu toll nii dix ans si kanam vingt ans si kanam ok fi mu toll nii mooy xale yu ndaw yi ñun fi mu toll nii am cinquante ans wala soixante ans war xam ne dana buñ ne la xam nga am a dañ lay nax nañ gëm yàlla te nga xam ne lii yàlla suñu doom yeeg suñu sët yi la ñu ko wërsëgal nañ leen gunge. liggéeyal leen ko bu ëllëgee ñoom ñu bañ a am coono ñun ñun ñu nekk sa àjjina ji gën a kawe. Mm-hmm, mm-hmm. ah xam ne ñun ñoo leen ko fàggandikul yal nañu yàlla boole jàppale. amiin Ousmane Sonko nañ ko téye xudd ah, ñaanu démbam gi rek de sa waay suñu borom du ko delloo de. Mm-hmm, te ku ma si déyoon nag danga ko ci sa sa bopp. parce que fa mu tibbee la ak li mu wax si réew mi ak yéeneem dañ leen ko gunge moom du ngir boppam ngir Sénégal la ku si ne boo ñëwee boo sa xam-xam fu toll ñu jox la la nga mérito mu jeex. ku ko mos a wax Sénégal gi xamut mhm. ah man de dama si kontaan wax dëgg yàlla yal na yàlla defal jàmm te yàlla mayal ko jàmm may ko jàmm. merci beaucoup Habib. yàlla am na lu ñuy sédd de ñoo bëgg caaxaane suñu bopp rek waaye yàlla sédd nañu lu ñuy sédd ba pare ñun li si def ñoo ko defal suñ bopp nag. Mm, mhm, mhm. jaajëf merci beaucoup soxna si kontaan nañ ci merci ñu ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax a baax 88 628 73 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee rek yéen itamit di ngeen daal di mën dugg wax seen xalaat ci li ñuy daal di waxtaanee tey jii bokk na ci Ousmane Sonko euh, vidéo bi nga xamante ni biral euh, nañu ko ni ki dem ci réseaux sociaux yi mu daal di euh, fësal ab tànneef jëmale ci élection yi ñu daal di dëtmal moom daal sàkku nañi ñu daal di topp ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye waaye dem na bay wax alliéem yi nga xamante ni euh, bokkoon na ci vingt candidats yi euh, te loolee yëpp stratégie laloon ko mu ngi sàkku ci ñoom it ñu dooleel ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye ak képp ku nga xamante ni rek gëm nga euh, projet wu Pastef bu fekkee am na beneen mbokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko moo xalaatam ci li ñuy waxtaanee salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Diarra. Oscar Siara ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax gis naa la nga may toon ngeen nga gaynde du sant Diop. <laughs> gaynde du sant Diop nag jaara a moom loo xam gaynde bu sant Diop sant Ndiaye. mais Ndiaye lay sant pire kenn doon ñoom ñëpp xam nañ ko. baa xam nga ni Diop bu amul woon Ndiaye du am. non mais alors que Ndiaye nag moo jiitu. waaw yàlla baax na ñu ngi bu baax a baax. ñu <laughs> lay la ziar bàyyi bii mm. sa moyen baax na waaw moyen nice na vraiment yàlla ñu jik amiin incha allah man euh, laa da leen a tey dañuy dóor Côte d'Ivoire Badoo. Ah. incha allah loolu moom dinañu neex trop buñ dóoree Côte d'Ivoire quoi. donc euh, ngi mm-hmm. souhaité en tout cas ñu ngi di souhaité bonne chance. Euh, yàlla jaar fa mu daan jaar rek ñu daal di labaliwaat quoi. trois heures ah, wala trois yi ah, quoi donc euh, <laughs> vraiment ñu ngi leen koy souhaité bu baax a baax donc di nuyuwaat ñëpp mhm. di rafetlu euh, kàddu yi fi jot a jàll vraiment am na solo macha allah et puis mhm. juge bi am na solo quoi di nuyu ñu si commentaire sama gars yi ñoom bo Gilbert Sadbu Satou Ba Ibrahima Seydou ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax baax baax baax a baax euh, di rafetlu li jot a jàll dama déglu Ibrahima sànq rek Mhm. moo tax moo tax ma ne xaaral ma profité quoi gaaw dugg parce que Ibrahima il fallait que ma kii ko quoi xanaa xamoo ñun waa ñun waa Pastef mhm. moom moo ñuy jàppewul ni ñun tariixa la ñu yor quoi moom loolu lañ jàpp et puis ñun tamit loolu lañ gën a bëgg sax parce que àdduna loo fiy taxawal lu nekk rek dañ ciy dem ak mis ni ki sa xol tolloo quoi mais taxawal dara ba noppi di ci dem affaire u naafeq loolu moom dañ cee nekkul quoi bu fekkee ne da nga nekk ci engagé wu ci benn mbir dañ ciy engagé wu ba jeex takk Mm-hmm. maanaam tarixa bi mu sëñ bi day woote digle ñu dem liggéeyi bay sëñ bi woote pour ñu joxe xaalis pour euh, euh, euh, tabax suñu ay suñu ay activité tout soit religieuse loolu lu mu ci mënti doon ñu joxe suñu alal loolu loolu n'est-ce pas loolu moom mooy tarixa mm-hmm. ñun fi ñu tarixa bi ñu bokk mooy tarixa Sénégal pour construire suñu réew moomal ko suñu bopp ñun loolu la ñu woote lan moo koy maye maanaam kàddu jëf ànd nekk benn boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm soxlaaw ñu alal ju jógee ci au niveau du étranger wala lu mu ci mën doon comme ñu ko ñeneen ñi defee soxlaaw ñu ko ñun li ñu soxlaa bu fekkee ne loolu moom mooy tarixa ñun pare nañ pour et puis président Ousmane Sonko li muy doxal ñu ko ciy topp bu fekkee loolu mooy dictature ñun pare nañ pour dee ci ak dictature hmm. kon loolu moom moo ñu tënk muy liggéeyal suñu réew ab dëkk nag boo ci nekkee ñaaree am da ngay bula mbaa nga weex mais nag boo bulee tey bëgg weex suba laakar naa ni ñoom a wërsëg bu fekkee ab waa la na dem foofu fekkente ne euh, ne loolu yoonam bu fekkente ne sa yoon new ci kay yaakaar naa ni waroo wax na ay dictature wala lu mu ci mën doon quoi ñun moom pare nañ pour mourir ci Pastef voilà comme ni ko président Ousmane Sonko jëf foo joxoñ fa la xool loo bëgg moom lu mu xalaat sax ñun moom lañ bëgg pour te dire voilà donc euh, loolu mooy woon pour Ibrahima bi quoi beneen bi tam mooy euh, ignorer magistrat bi ñi nga xam ne def na yaakaar dañ cee yéex ah. mhm. parce que yéex ci paasewul euh, saabu ci fay nekk ab juge nekk ci tribunal bu Ziguinchor jël décision ne nangam la ba pare ñu fay yebal li jaas la xaw ma ijaas mun ñu dem di ko topp ci yoo xamante ne wax dëgg yàlla di ko contrôler ci yeneen union de magistrat waroon naa génn recadré waat li nga xam ne ñoom ñoo yore lool donc beneen juge bi nga xam ne mooy juge Thior la xaw ma te mu joxe woon beneen décision bi nga xam ne moom lañ joxe euh, euh, dakaar boobu tamit yaakaar naa ne union de magistrat waroon nañu gaaw génn ndax bu fekkee ne da nga nekk ci benn état boo xamante ne ni toujours bu fekkente ni magistrat dafa joxe benn décision affaire yooyu noonu rendre que mu faveur à seen côté bu fekkente ne dañoo gén di ko attaqué Euh, yaakaar naa ne ñoom union de magistrat waroon nañoo génne teel see wax kon nag tey jii bu ñu toogee bu ñu jàpp ñaari euh, kii yoo xamante ne ñu ngi ci sept sages yi ñu leen ci kii ñu soog a génn yaakaar naa ni loolu moom mooy dañoo xaw a retard quoi waroon nañoo teel a génne bu yàgg quoi. Mm-hmm. Euh, beneen bi beneen bi ci topp mooy Macky Sall dafa gisante ak Karim Wade de France loolu ci deux mille vingt deux bi la ndax événement deux mille vingt et un yi bu mu paasee. Macky Sall xam na ne fi mu toll nii affaire yi jekku nañ ko te fi mu toll nii moom mënul dem ndax coow li nga am Macky Sall euh, stratégie yi mu doon teg Karim Wade daf cee bokk Karim Wade bu dee mënta génn Qatar loolu ko ko waxoo dëgg Karim Wade ñaata yoon la dem Rwanda Karim Wade ñaata yoon la dem ak doom baay bi day nekk Sénégal ñoom nekk France doom bi nekk Qatar te mënuñoo gisante loolu la ñuy déggante loolu c'est impossible mënta nekk comme naa ne donc euh, Karim Wade ak euh, Macky Sall gisante nañ la ñu waxtaanee te Amadou Ba yëgu ko te fekkew ko daf cee mujjee jot moom tamit ba mu ci jotee moom tamit neewoon naa leen ci yaakaar naa ni waxoon naa ko boobu zéro moom moo fi nekkee neewoon naa leen ah Amadou Ba dafa am gang bu diis boo xamante ne nii Macky Sall xamu ko gang boobu mu ngi biir Sénégal Macky Sall am na gangam ma Faye saal am na gangam Moussa Fall am na gangam Antoine si Diome am na gangam ali Ngouille Ndiaye am na gangam kenn ku si nekk sa gang. xamantewu leen mais ganu Amadou moo gën a diis fuuf parce que ganu ganu ganu Amadou Ba quarante deux renseignements généraux yoo xamante ne yu Macky Sall la plus dix yëpp ñu ngi ci loxo Amadou Ba <laughs> te am Macky Sall la xamul lool comprendre nga maanaam affaire affaire affaire euh, lekkante la mais sono jaar yaa ngi suivre cœur brisé yi daw euh, euh, event pro effectivement maa ngi koy suivre kay. yaa ngay suivre gis nga cœur brisé ni mel noonu maanaam mémoire brisé moo am biir APR interne mémoire brisé xam nga bee cœur brisé la mais mémoire brisé moo am biir euh, APR interne te yaakaar naa ne jamono yi si ginnaaw ne woon naa le premier janvier jàpp euh, ba kera janvier bi di jeex di ngeen dégg affaire bu rëy ci biir APR biir boo ko Yaakaar teg ci te loolu noonu di ngeen ko dégg samedi jugut dafa am man maa daan woote de chaque samedi man maa daan woote à partir de vingt trois heures di woo kilifa gi pour di ko am ay question de mais keroog samedi ma ne waa kilifa gi maa la bëggoon woo sax woo mu ne ma non dafa am lu ma la bëgg a laaj quoi ma ne ko ah mu ne ma concernant vidéo yi génn ñu enregistré biir Rebeuss la biir Camp la wala ñu def avant la man que léegi lu tax nga may posé question dama lay laaj rek boo ci xamee danga ko ma quoi ma ne ko moom vidéo yi avant la du léegi de mu ne ma c'est sûr ma ne ko avant la du léegi mu ne ma parce que li tax ma laaj da ko muy administration bi Guine Tandière fi mu toll dañu leen mettre pression bu doy waar boo xamante ne chaque jour ñu envoyé ay renseignements généraux ba xam affaire yi dañ koo def ay audio ci biir euh, euh, camp pénal bi di ko monter ay vidéo di ko génn ou pas quoi ma ne ko loolu loolu na seen xel daal man kat euh, j'espère que yéen affaire yi moom moo nekk seen problème dama leen toll mu ne ma dès génnee ba léegi maanaam ci loolu rek la ñuy wax ñoom amul ndaje bu ñu deful ci guddi plus de cinq personnes six personnes ndaje rek pour wax ci vidéo yi quoi man ko kon ça veut def leen déstabiliser mu ne ma si ma ko xaar leen yeneen des na ay yeneen yeneen épisode ma ne jour bi nga xamante ne si la ñuy defee collecture campagne campagne électorale jour bi ñuy defee collecture yi meeting boobu noonu dina am benn xamante ne bu leen fekkee ci kaw suuf moo leen di faagaagal boobu bi <laughs> ah, ko hmm. maanaam dafa am yeneen i vidéo yoo xamante ne nii dafa des te loolu xam nga yàlla bu jàpp ci lenn mbir daf ciy jàpp xamante ne nii yow sa bopp doo xam ne yow yàlla ngay bëreel da ngay nit ngay bëreel fekkee yàlla ngay bëreel te yaakaar naa ne ku am fit bay takk sa gémm naan da ngay bëre ak yàlla yaa ngi sóoraale sa dee bu baax a baax te xam ne dina ñëw voilà beneen euh, rek mooy comme li ma leen waxoon keroog rek keroog maa ngi bëri naa leen ay projet de loi projet de loi pour man lu dugg assemblée rek projet de loi la donc affaire yooyu noonu nga xamante ne ñaar ñoo ci ànd mu ñaari groupe parlementaire bu euh, euh, wàllu ak bu bennoo bokk yaakaar maanaam Macky la xam nga booy lab ci géej bañ tàllal la paaka da ciy jàpp ndax boo ci jàppul da ngay lab te boo si jàppee man na laa dagg Macky Sall paaka boobu la ko waa wàllu tànn si moo tax mu bëgg cee jàpp te am na yenn yenn député yoo xamante ne mu ngi ci biir député yi si biir commission boobu ñu taxawal Amadou Ba pare na pour jox xaalis bu bëree bëri pour ñu xëppas cere ci suuf maanaam même waar brisé bi waa benn benn bokk yaakaar di dund dinañ ko wàll waa waa waa waa PDS ñoom même waar brisé boobu moo leen nar a dal ñu boole seen cœur brisé bi leen Karim Wade teg loolu moom moo leen nar dal. te ñoom xamuñ ci dara. d'accord donc maa ngi leen di wax encore une fois bu baax a baax di wax candidat yi nga xamante ne euh, sànq balaa maa ko fàtte sax euh, kii nee na Ousmane Sonko ma ne woon du ànd ak nangam membre système yeeg affaire Habib Sy lan moo tax ñu ko jox treize députés ak nangam nangam moom dafa juum parce que système yi boo ko bëggee kon euh, boo ko bëggee jàppee nit yaa ngi juum quoi. système bi dafa nekk système boo xam ne depuis indépendance ba léegi moom moom la ñu moom la ñu tubaab bi installé woon si suñu mémoire yi suñu système logiciel bi ñuy doxee ñu waa Sénégal système boobu noonu la si tubaab bi installé moom la doxee léegi nag machine bi la ñuy jël tege ko ne indi beneen machine bu bees installé suñu logiciel boo xamante ne moom mooy suñu système normal moom moo koy grisé ñun bi ñu moom kon loolu noonu yoonu Habib si nekku si Aminata Touré nekku si Amadou Ba bu divisé na woon APR benn boo ko yaakaar ñëw na day jàppale Bassirou Diomaye Faye dañ koy taalal suñu loxo ne ko su waaye dee mun booy wut doo fatas buñu amee nag ba pare ñu ko xam nag ni Sénégal ñii lañ koy yore tet yii yu set yii nii ñoom ñooy doxal Sénégal ñun nag bu fekkente ne moom mag moomu moom la di jox ay ay ay xalaatu xale bu ndaw buy doog a judd ñu ñi nga xamante ne nii ay ay ay ay jarbaatam lañu wala ay frère am lañu ñu ngi koy ñu ngi ñu ñu ngi koy woo ci xel mu sell ak xel mu set dañ bàyyi di lekk du lew ndax loolu day day lëndëmal mémoire doomu aadama ñu leen di jaajëfal baa di leen jégal ci guddoo gi ñu leen a mën a yaatu ci ko daal jot ñëw ànd ak ñun ci li nga xamante ni mooy bi lay waxtaan mën ngeen a woote ci numéro yi ngeen daal seen ci suufu écran bi ah, bu fekkee am na keneen ku ci ligne bi bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullaahi wa lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. kon ziar. Mhm. d' accord tur fooy wootee wala da nga koy leb. non man kay aw leb fii fi mu ne ko ku leb di nga fay. d' accord d' accord ñu ngi lay. dama ku leb di fay de. Mhm. al mooy thème la sax. li ñuy waxtaane tey euh, bokk na ci vidéo bi nga xamante ni biiral nañu ko euh, démb mu soxal Ousmane Sonko mu daal di defaat beneen déclaration ñenn ñi tuddee ko épisode 2 waaye ñi ki déem li ci gën a fës bokk na ci tànneefam mi nga xam ne ni daal jamono ji Bassirou Diomaye Faye moom la tànn ngir mu daal di yeggale euh, projet wu Pastef di sàkku ci ñi nga xamante ni jàppoon nañu ay allié am lañ ci biir 20 candidats yi ñoom aussi ñu daal di mën na rangé wu ci ginnaaw Bassirou ngir rek doon benn euh, mën na daal di gën a ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye beneen ponk bi bokk na ci union des magistrats jamono ji ñu toll nii bind nañu défendre conseil constitutionnel ginnaaw PDS kàddu ay tuuma wala tuuma yi nga xamante ni jël na ko euh, teg ko ci euh, seenu ndoddu ne rek dañ leen daal di corrompre jamono ji UMS ma ngay daal di défendre conseil constitutionnel lii la ñuy waxtaanee mbokk mi ban jàngat nga ci am. waaw ah, premièrement ma ma wax si ñii di défendre conseil constitutionnel. Mm-hmm. ñoom euh, ki nekk si Ziguinchor xanaa moom du juge. Sabassy Faye. Sabassy Faye du juge ki nekk dakaar du juge. Mhm. kooku doon àtte ko bañ naan parti Pastef la bokk kooku du juge xanaa. Mhm. ñoom dañu xaar ba jaan bi romb ñu téye ci watat bi du dóor gis nga nit booy arrêté dara da nga koy arrêté ci commencement ba. Mhm. parce que boo nekk ak ñoo xam ne amuñu xel du ñu utiliser seen xel da nga leen di teere freiné bul xaar ba affaire bi ëpp loxo nga soog leen freiné. ñaareel bi mooy waa PDS moom dañ ñoo yab parce que candidat boo xam ne puusoo tàkkoo juróomi at ñëwoo Sénégal ça veut dire mës nga gis nit ku liggéey ba war a ba war fayeeku nga jóge fële ci àll ba ne man maay fayeeku loolu foo am si àdduna mais yéen i yabaate la waa PDS ñoom sénégalais la ñu yëpp ku ñu yëpp ñoom nee naa la chaque jour PDS Idrissa Seck ak Khalifa Sall ñoom ñëpp ay dealer lañu ñoom Macky Sall yëpp dañuy deal PDS ñoom lu tax ñu am vingt cinq député lu dul lu dul Sonko moo tax ñu am vingt cinq député bañ demee assemblée nationale lañu lañu la ñu beddeeku ñoom seen xeex bi te waa léegi ñoom dañuy xeex waa léegi nañu génn ci biti ñu xool ñoom nañu toogu <laughs> ah ñoom bari te ñoom bari nañu wóor na boo leen dugaloon ci saal duñu mat fukki personne kenn du ci génn dañoo ker <laughs> mu la leen ñëw nag ba nit ñi xeex xeex xeex ba Macky war a dem troisième mandat kii ngeen naan ay non Karim bokkul dañuy pok waa Karim fu mu ñu dëkk waaye Karim moom Karim moo ñu gën wala Karim papa may Ablaye Wade rek moom lu ko neex lay def Karim daf ñoo gën ñun moom sénégalais cent lañ amuñu pa amuñu yaayu tubaab amuñu papa tubaab waaye Karim moo ñu ëpp ful ñoom sax ñoom Karim da leen da leen da wayu du loo parce que ay magum jëmb nit ku toog fële. xeexul puusul tàqul di lekk-lekk bu neex di tëdd fu baax yéen ngeen nekk si naaj bi di xeex di di xeex ba cappa xanaa xam ñoom xamuñu Karim moo saraxa boppam hmm. Karim tey moom moo joxe moom munoon na toog rek jàpp njaamar kooku dugal record bi na ko ay preuve moom mu toog moom mooy indi paaka bi na rendi leen ma ñu rendi ko ba mu dee ba sànni bopp bi léegi mu jóg naan nag de bu ñu buñ ñu fontoo d'accord waaw cëpp cëpp andaw li nag mooy nag ki xam ne nag moo jaaxal at moom jaaxalul Sénégal de àdduna la jaaxal mm-hmm. waaw parce que kii man man man Sonko dama yaakaar ne Sonko sax est-ce que est-ce que du wàllu yu ñu nëpp <laughs> Badou mm-hmm. am man koo xam ne dangay xam de loolu wàllu yu rek laa ci xamal man de ma man de bis bu génnee dinaa ko jox ko ne ko li saxaaral ma man man kii man daw man sañ soxla ci man kii daf maa jaaxal soxna si. Mm-hmm. Sonko mooy